jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci jàmbaar news mbokk yi nuy nañu leen am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saasu su ne ñu ñëw fii nag dibiteri Lomboté bi ne Médina rue 11 la fii du rue 11. rue 11 angle 8 fekk fi mbay guy gi borom coow li moom mi nga xamante ni moo bëre woon ak armée bërki démb moo njaay ci arène nationale daan adversaire bi dóor ko ñaari kurpañ yan promoteur bi siège bi laggu coow li yóbbu ko loolu boobu ci histoire làmb dootul am mbër bu li mbay maa ngi lay nuyu baax di la si waaw Baye Djili ñu ngi lay nuyu di la wax ginnaaw ban sant yàlla ñuy julli Yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lam jërëjëf Serigne Tafa Diouf sama Serigne borom boox ak Njaañ maa ngi nuyu waa Bawol fa ma dëkk susuma reefan susuma nag sama dëkk muy reefan boox di nuyu képp koo xam ne deretu Bawol Bawol a ngi daw sa yaram lambaay lambaay mexey Bambey maa ngi nuyu képp koo xam ne bawol bawol nga di nuyu Médina 1 ba 45 Fass Colobane Gueule Tapée Bène Tally Liberté 6 maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. dimanche bi ñu weesu dañoo jógee ci combat bis bu rëy sa diggante ak euh, xale bi nga xamante ne mooy armée bu benn baraak combat bi nekkoon combat bu yàgg ngeen wàccaay ci def ci lu ne. mais keroog ci làmb ji dañuy ñëw rek ci directement ci mbay guy gi bi dugg si stade mbay guy gi mi ñu gis mbay guy gi bu bees tàq ñëw ci digg géew bi ànd ak détermination mën nga ñu wax keroog làmb ji bi nga ñëw arène nationale loolu bés bi jaraloon. waaw làmb ji moom jaraloon nañu lépp ci àdduna parce que defe naa ne bii moom sa da sama loolu gars yi naan sa dernière chance waaw dama moom ci lu ma jógee mu merti lool ma dégg lu ne. lalu toog sama rox kenn gisuma ma làqatu dem géejawaay kër sama papa jeey tëdd fa entraîné ba combat bi des weer ma ñibbi si Medina contact dem bëri ji indi lépp nag ci làmb ji loo xam ne lu na ma may ndam la ma indi ko waaw mais lépp daal indi woon naa ko mais dama jël si woon di sama victoire waaw leeroon na ma ne damay am ndam incha allah mooy loolu. bi mu simmee ko armée dañu gis mu indi état de forme bu mucc ayib boo xam ne mën nañ ni moo gën ci état de forme yi mu mës a indi ci làmb bi mu simee tiitoo sa xel demul ci daal. no bi mu simee koo dama ne macha allah laf cat entraîné na taxaw na ñoom gée teg nañ koy coono kuy ànd ak général Malika da ngay entraîné moo tax macha allah man loolu laa ci bëggoon boo gisee signature bu mujj bi maa ngi ko koy wax maa ngi ko naan indil forme boo xam ne bu ñëpp jàppee seen gémmiñ maa ngi gis nag tànk bi metti moom benn taab bu mag yàlla na yàlla wéral ko. waaw ba mu doxiwaat ay soxlaam armée yéenewu ma ko dara lu ñaaw su ma ko yéenee dara lu ñaaw yàlla naa ci jiitu barki Seydina Mohamed billaahi wallaahi entraîné na taxaw na bi mu sumé ko damaa xam ne kii tey combat laa am te dinaa bëre te man loolu laa bëgg ci combat bëre weccet génn ñu bëre agence ente bëre waaw mais nag sant yàlla yàlla may na ma ndam ci kawam manuma ko yàllaa yëkkati ndam jox ma ko maa ngi koy sant yàlla baax a baax a baax. bëre Euh, ku mu musaan jàpp ci suuf yëkkati na la ngeen bëre mu daan la mais bi yoon caxabal ngay indi tànte nga ko trois fois jàll lan moo waral lool. ba léegi waa làmb laay wan sama bopp rek bu ma amaatee combat beneen action laay indi ba léegi waa làmb laay wan ne leen mbay mën na lépp pour ñu def loolu seen bopp ku foog ne mbay mënta bëre wala mbay doole rek la am yaa ngi nax sa bopp man mën naa lépp jiili lépp luy bëre mën naa ko barki Seydina Mohamed boo ma fekkoon may contact nga jàpp sa gémmiñ waaw lan moo tax muy raté mais dab daan roofu ma ko cabaxal fii buusewut fi mu taxaw bi ma ko roofee cabaxal fi mu taxaw laa ko daan roof laa ko def mu dëju waaw kay li ma tax mu lii dama ko jàpput jàpp bu baax moo tax mu ri tax ma bàyyi ma ne lii bàyyil ma changé jël na xelam mépp def ko cabaxal bi moo tax ma wàcce sama bopp ndengeeñ ko laal loxo bi de ca loxo bi ba mu wër ma ne loxo bi dugg na fii ma téye ko ci laa ko dóore palaake waaw. lu jaaxal mooy ci biir bëre bi danga koo buubee arène ba technopole te mënoo koo daan bañ génn saako. waaw loolu du dara ni ma ko jëlee la dama ko jël dawal ko jubal ko directement bu ma ko dawaloon wañ ko nii mu daanu mais loolu yëpp maa ngi doon peese waale mooy kan ak lana fi ne. boobu yëpp dama doon wane combat bi dama ci doon wane sama bopp jiili wan leen leneen mën naa lépp am naa condition am naa doole loolu rek laa ci doon def quoi waaw. ñu bari waxoon ne mbay guy gi du xatar bi du mbot du laali du def dara nga ñëw mbot mu samp bopp bi. da def geste boo xam ne ak lu làmb ñëpp dañ ko ñaaw da nga ko dóor benn ñu ne def laa rëcc nga dolliwaat beneen. waaw loolu moom maa ngi koy tuub di ko jégalu képp koo xam ne yaa ngi si làmb képp koo xam ne yaa ngi seetaan làmb wala ngay seetaan sa téléphone gis geste bi maa ngi la koy jégalu parce que mbay guy gi kenn xamu ko ci lu ñaaw maa ngi ci sama 16 combat xaw ma sama 17 combat mosuma def man CNG est-ce que xam nga ne jiili laajal sama ménagère CNG mosuma dagg 1000 francs ci làmb Sensei musuma dagg 1000 francs ci lamb dégg musuma doo dagg dara ci lamb man ba may ba léegi. kon tay ji képp kuy dundu lamb bu mbay guuy gi mas nalawan la won Nema ki rek ki ki nema ki man mi la mas sa am te du am ñun ay bawol bawol lañ judo bawol yaro bawol ñu yar ñu fi ñu wara yaré mais erreur du mëna ñak njum la njumté na man nanguna né ne damaa té ma jum. maa ngi jégalu sama adversaire ci dóor bi ma ko dóor maa ngi koy jégalu ñëpp di ko jégalu ay mbokkam di ko jégalu waa ICREM di ko jégalu waa Yëmbal di jégalu sunu papa Bira moom mi nga xam ne mooy sunu kilifa. ak sunu papa Ndiame maa ngi leen di tuubal bu baax di leen jégalu. bon première bi ak bi lépp laay jégalu. li nga def dafa garaaw parce que da nga dóor armée benn. gars yi di nga bëgg dóoraat beneen arbitre bi daw jàpp ci nga tourné jàkkaarloog entraîneur bi fete ko. daw ba ci promoteur bi yéen ko siis bay wallaahi asim billaahi wallaahi comprendre ma sax billaahi wallaahi taala biñ ma wanaatee image yi dama ne lii est-ce que billaahi wallaahi wa taala yi tayu ko bu dee lool maa ko tay bu ma maatee combat yàlla nañ ma dóor ma daanu entraîneur bi nga dóor déggoo ma tayu ci dara man comme daa am lu ñu ma boolee doon rek mu topp ma di ma defloo affaire yoo xam ne comprendre ma kan moo la xabtal def na ay de ko. billaay wallaay taala. kan yoroon gàllankoor jaay la rek. wóor na Serigne Bamba combat bi nee naa la lépp laa ci yor lépp loo xam ne rek yaa ma gën a xam yor naa ko ci mais maa ngi koy tuub. du sama tayeef. Abdou Seen la rek maa ngi moom a ànd fépp lépp mooma. biteel yi indi coow lépp sutti ma xabtal yeeg lépp mooma mais billaahi wallaahi wa taalaahi képp ku ne ci làmb mosuma la dépassé mosuma wax ci làmb lu ñaaw mosuma fekke fu ñuy xase mbër. mosuma fekke fu nuy xase promoteur man li ma xam mooy comédien gars yi ree li bu loolu amul yow miy waxal mosoo maa xam ci violence mosoo maa xam ci lu sax ñàkk fayda mais tey jii bu loolu amee erreur la ci man la jóge nangu naa ko personnel nangu naa ne lépp man la maa ngi koy tuub di ko jégalu waaw lu mën a am man la maa ngi koy jégalu ñëpp képp ku ne ci làmb maa ngi tuubal la di la baalu ak di ko jégalu di jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam naa ne def naa erreur te maa ngi koy jégalu waaw ñu gis nga demaat ci plateau bi toog promoteur bi toog yaa ak mbër mi ngeen waroon waxtaanaat foofu jéggalu mbay guy gi coowaat ak mbër mi ba dóor ko fa ñaari coup jëlaat si promoteur bi moom nee na gis nga ko bu baax yen ko ko ci ginnaaw lan la dat bee yàgg te dégg naa da ñëw fi naan combat bi moo yàgg moo tax ma ñamal arme benn promoteur bi tamit looloo tax ma ñamal mukki àdduna loolu du ma ko wax promoteur bi jël xaalisam xaw ma fu mu ko liggéeyee fay ñu ko bu lu ma wax Ibrahima li ma koy njëkk a def Ibrahima maa ngi koy baalu ak bu baax ak ci mbokkam di di leen baalu di ko tuubalaat bu wér Ibrahima jóob di ko baalu ak man Ibrahima ma yëkkati sees dóor ko ban njariñ la ma amal armée ma yëkkati sees dóor ko wala ma yëkkati kuu dóor ko ban njariñ la ma amal armée ñun ñaar ñooy mayante xaalis te sama grand la moo ma jiitu ci làmb dal ma may chance mais ci biir plateau bi erreur am na yaram wu tàng ba léegi am na tàngoor woowu moo ma jàpp ba bi ma ñëwee sama kër àggaleegu ma journaliste yi jiili lépp lu am rek seen mbokk yi ñoo ko def waaw parce que warumaa ñëw bëree bëree tàng jiir rek nga ñëw bëgg maa wax loo su ma waxee erreur am te xale maa ngi tuub mais nit danga koy bàyyi mu ànd ak conscience am ba nelaw ba yeewu nga door ko laaj comme nii nga def mais erreur bi ma def mooy journaliste yi ñëw ñëw ma wax ak ñoom boobu sama yaram sama deret seddagut maa ngi tuub wóor na Seydina Mohamed am naa ci lu ma mitti lool lool. kàddu yan kàddu nga fa wax yoo xamante ne jàppaat nga ni lii ay njuumte. non njuumte gi ma fa wax mooy bi ma nee combat bi moo yàgg moo tax ma daan ko ne ko kang yóbbaaleel bi looloo ma mitti loolu laa juume nangu naa ni juum naa looloo ma mitti jëlee. billaahi wallaahi wa taala mais promoteur bi amul kenn kàddu goo xam ne yëkkati naa ko di ko ko wax Ibrahima nit ku baax la ba combat bi yàqoo yëkkati na xaalis bu bari dolli ma barke alxuraanu karim yàlla rek a tax may wax. xaalis la yëkkati ne ma doo a gën a gore parce que lamb ji dafa metti yëkkati xaalis ñëw jox ko sama ménagère Matar Ndiaye mu jox ma ko ba ma ko joxee dama ne ko man garaawut yàlla baax na heure boo amee date rek pare naa pour bëre moo tax déggoo ma ba léegi ma wax mais Ibrahima moom maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax di ko baaluwaat ak bu baax a baax a baax di baalu ak samay kilifa ku ci mel ni sama papa Dieye maa ngi koy baaluwaat ak bu baax sama papa Bada Dione sama papa Daouda Sarr sama papa Abdou Aziz Ali Ndiaye di ko jaale sunu papa Baye Allé di ko jaale képp koo xam ne rek yaa ngi ci monde lam ñu ngi la koy jaale sunu papa la woon ju baax ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom oyofa suuf ci kawam ci barke Seydina Mohamed mais jii lii am naa lu ma metti torop torop torop torop barke Seydina Mohamed boo ma gisee ba ma bëreeg léegi ni ma jeexee nii nga xam ne ama damay xalaat parce que man xaw ma ay coow xaw ma benn bur wi xaw ma lu ñaaw te du ma fekke fu nuy defe lu ñaaw du ma fekke fu nuy waxe lu ñaaw barke alxuraanu karim waaw dañ ma convoqué mercredi CNG waaw. CNG lañ ma convoqué fu nu may convoqué feneen. ba xam porte plainte bindu plainte wala wala sama diggante ak moom plainte xaju ci. parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay bawal bawal lañ. lu ñaaw xaju fi. man nañ dem tey ba tuddante ay doom. xam nga. àdduna amul solo. fii njuumte gu ne am na fi. te nit day taxaw jéggale. yàlla sunu borom moo yor ñëpp. yéenewu ma ko dara lu bon loo xam ne nit saabo nit ma wax la leen tey nag ak ku mën a doon nit koo jël pour yëkkati ko pour tëjlu ko pëlis rek jàppal ne yow nit kooku boo ko jekkoo man nga koo rey nit boo ko yóbboo pëlis jàppal ne boo ko jekkoo rek mën nga koo rey. mais nit mën nga ko yóbbu police parce que dafa am erreur yoo xam ne. njuumte la tëjlu ko yoon àtte leen yooyu yëpp erreur daa am erreur yoo xam ne da nga koy jéggale mu jeex. am na yoo xam ne duñ ko kenn mënu koo jéggale xam nga li ma la comme yeneen ak yeneen mais lii maa tooñ nangu naa personnel fu ma mënoon a taxaw ci kanam procureur sax dama naan ko maa tooñ damay jégglu leneen mënuma ko ci tooñ laa maa def lépp maa ngi tuub maa ngi jégglu Ibrahima Diop promoteur bi tëgg laa ji est-ce woo nga ay mbokkam jéggalu parce que moom nee na mbokkam yi daal ñu ngi ci liñ war non Ibrahima sama grand la sama papa la sama lépp la parce que nit ku baax la bi affaire bi amee ci guddi gi laa ko bëggoon dem seeti ko ma dem ba ci sama papa Dieye nga xam ne mooy sama kilifa ma ne ko Ibrahima kat il faut ma dem seeti ko mu ne ma toogal nii moom laay wax ak téléphone ma toog mu wax ak moom ba pare mu jox ma ko téléphone. ma ne ko Ibrahima maa ngi lay tuubal di la jégalul mu ne ma sama rakk nga sama lépp nga baal naa la ak ci xol bu sedd guy bi bët setaatee ma woowaat ko téléphone ni ko Ibrahima maa ngi lay baaluwaat ak naka yaram bi mu ne ma baal naa la ak ci xol bu sedd guy bët setaat ma woowaat ko ne ko Ibrahima fekkoon ma génn. dem ñëwaat ne ko Ibrahima dama génnoon kat moo tax mais naka yaram bi mbaa alhamdulilah mu ne ma sant naa mbay bu baax a baax a baax ma ne ko maa ngi lay tuubal di la baalu mu ne ma baal naa la ci xol bu sedd guy woo naa ko trois fois barke alxuraanu karim. mbay erreur yi ngeen def nii saa yu ngeen ko defee rek damay gis ni da ngeen koy jiiñ gàllaaje xabtal yi ñu def xabtal yi affaire yu mel noonu est lii tamit jotul ngeen jëlaat seen. mesure bu baax a baax man lan mais bu may demati ci sëriñ sax dinaa ko ne lépp lu may tàngaloo ma ko jox. bàyyi maag naturel waaw man moom parce que man naturellement rek tàng naa sama tànguk bopp mais man moom combat bii moom xaw ma nu mu demee mais comprendre ma quoi jili billaay wallaay taalaay comprendre ma quoi billaay wallaay bagage yi dafa bëri doole liñ ma jox wóor na yàlla xam nga rek ci li ma jóge damay dem ci paa sax toog jooy xaj bu ma génnee ci àll bi damay toog jooy xaj ñu ne ma lan la ma ne leen combat bi bu ma daanoo torox parce que man làmb daa am ci man yaakaar ñu ne ma ah ma ne leen daanu moom mooy banaa bëre bu ma daanoo bàyyi bëre jooy xam naa ne looloo waral billaahi wallaahi noonu nag xam naa looloo tax gaa yi xam nga boo ñu waree def boo jooytoo ñu yokk xam naa looloo waral affaire yi mais maa ngi koy tuub bu wér. ci TikTok bi gaa yi ala gaa yi fu ñu aw. non waaw parce que tey jii coow daa am dama bëree samay supporter ñibbi ma des fekk sama gaa yi woon ci géew bi ñu jàpp ñenn ñi ma leen di lijjanti man duma dem bàyyi nit ñu jàpp ko may lijjanti. ma pare ndekk gaay armée yi ñu ngi taxaw ci biti di ñu xaar pour bëgg ciow ak ñun mané ana gaay jarul ñuy nefi di ciow wala dara kay leen ñu jaan ni dem ñibi dama mujj auto bi ma andi won sax duguma ci ci benen auto la dug quoi ngir bëgg jaam hmm mhm. waaw ñaan gu nango sonal borom sant na ci yalla bu baax ci ñaan gi mais ñaan gi it musiba la ñaan goy doore ay promoteur ay cies mom ak ci door mbeur mom yalla bu mako amati. billaahi wallaahi taalaahi ñaan gi dóor guy tax may dóore wala di def bitis yi yàlla bu ma ko amati billaahi wallaahi wa taalaahi